He got الأبراري في العال والمال بالتقرار هذا وقد خدمة تقول عين النبي بها كما تلزم نويت من العال خدمة لكم مصابا بيك بيت ما زر أجرم تمنى بالبرايا خدمة لمن بجايك فاني شرف أحمد الله كل من درهم وكل سوء أنا الكرم وشكرا لله سيدا جسم ولا جنان كيدا حمدا وشكرا لا سمع قدورا رب الورى وسعت قدورا متجيا كوني قديم الاصنام وانا فوز بالمغار الاصنام ملتمسا من مالك ان ينفع بها كثير داين بيعاق جعل العاب جاي المذبح صلى عليه بسلام الزباق نجما مباركا يقنا زابا كما الذي كابدني يا زابا ارجوزة عابدة لله مع الكتاب والرسول الله سميتها dolli ko katan ba mu motali mbolem ay nalam ak ay yenem ci liggéeyal khadimur rasul diko ko ñaanal mboolem njabootu serigne touba gi yépp ak kilifa dini yépp ak julit yépp ak talibi di ziyaare bu baax Cheikh abdullah Ahad Mbacké mi nga xamne mo wote bis bu mag bu tedd bi nu di ko ñaanal yàlla sunu borom yàggal ko fi te yàggal kilifaam ci kanamam ba yéene yi mu am yépp ci liggéeyal ko maamam Cheikh Ahmadou Bamba mu defe ko nim ko bëggee ci barke Sëñ Touba di jaajëfal bu baax sëñ jili abdul Khadir. ci waxtaan mom solo bi nga xamne ñi fi nek diko ko ñep jariño nañu ko ab soññee ngi ci bo xamne dana tax nu gën daw ci kon na ko yàlla te taxaw ko bu baaxa baax sëriñ ibrahima gueye no ngi tek ci yow nuyo bok yi nga xamne ñoo bi liggey bi ndax jokkaloo gi serigne bi doxale won sunu diggante te lepp nga matal ko ta rafetal ko kon nuy no ngi jëlaat lépp tegar ko sa loxo di ñaan yalla yi mu doon la jàppale taxawlo bu baax ba liggéey bi yépp nga ko ni nga ko ngi ab nuyo sama jawriñ serigne ali Thioun di ko ñaanal yalla yi euh, liggéey bi muy liggéeyal serigne Touba lim ci bëgg yalla nako ko ci sunu borom defal ko ko lim bëgg ci serigne bi yalla nako am li serigne bëgg ci momit yalla ci barke xaadimu rasul noo ngi sant bokk yi fi nekk yëpp ak mboolem kilifa yëpp tomb bii nu sëriñ bi wax nu waxtaane ko mu jëm ci ak taali bi dafay mel ni ni sëriñ bi doxalee mbir mi dafa yéeme lool ndax bu tànnee ngëneelul xasaayid yi ngir ñu waxtaane ko mu tànn tomb ak taalibe loolu dafa mel ni dafa tànn rek wut ndab loo xam ne dañu ko defar ba mu noppi lépp di ay xéewal mu wax nag yoon wu ñuy jaar ngir mën a xéewlu ci xéewal googee loolu mooy diggante ñaari tomb yi mu tànn ndax bu xéewal tegee fi sa kanam te xamuloo noo cay xéewloo day mel ni loolu dana dana jafe kon nag te yoon wanu ci mën a yóbbu loola moo tudd ak taalibe li tax ñu di ko waxtaane nag mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa waxoon ne la yati ala nas zamanun yakunu alxaabilu la ala diini kal xaabil ala jamra yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne jamono dana ñëw téye sa diine day mel ni ñëpp xalu sawara nga xam ne xalu sawara ci teen bi ak yete ne nee na jamono dana ñëw noonu muy mel ni la téye sa diine di mel loola it mooy kon jamono dana ñëw joo xam ne ak taalibe dana jafe lool yonent bi it sallallahu alayhi waxoon ne euh, jamono dana ñëw joo xam ne nit ñi dañuy dajji sunna teg ko ne ba ba balaa saa taxaw mu yowmal qiyaama nit dana nekk di jëfe sunna ñu ne ko yaa ngi jëfe bidaa nit di jëfe bidaa ñu ne ko yaa ngi jëfe sunna loola it mooy fi nu egg mooy jamono dana yegg foo xam ne da nga gis nit koo xam ne day dox ci ak taalibe waaye dañuy wax ne du ab taalibe nga gis nit koo xam ne doxul ci ak ak ba noppi ñu seereel ko ne moom de ab taalibe la kon ngir loola nag nanu delluwaat ci ki nga xam ne moo taxawaloon yoon wi muy Cheikh Ahmadou Bamba nga xam ne dafa wax ne yoon wi mu sos mi yoonu murit yoon la woo xam ne yoonu tasawuf la wuy wommat ab jaam di ko jëme ci boroomam ci yan fondement la ko teg bu ñu delloo ci mbindam mel na ni bokk na ci fukki laaj ak juróom-ñett yi nga xam ne gouverneur général laajoon na ko Serigne Touba ca Ndar bokkoon na ci laaj bu mu ko laaj sa yoon wii ci lan nga ko sos Serigne Touba ba muy tontu dafa wax ne ussu tariqati al imaanu bi tawxid wal islaamu bil fiq wal ixsaanu bi tasawufi dana yoon wi dey dama ko teg ci ñett gëm yàlla jëfe sa diine ak rafetal ko ñi yoon wi dafa sukkandikoo ci ñeent xam-xam liggéey jaamu yàlla teggin yun gërëm mooy yoon woo xam ne it ba'idatun ani tafrit wal dafa sori ëppal ak yéesal di yoon woo xam ne wu sori ak bokkaale yàlla la ak weddi ko ndax lépp dafay dox ci tawxiid kon mu mel ni it ginnaaw moom loolu mooy jëmmi al irada bi di al muridiya bi aji ki ciy tàbbi it nekk ay xaaj al murid al muridu sadiq al muridu salik al muridul wasil jëmmi aji soobu ji muy gëbi bi dañuy wax ne al muridu huwa al muminu al muslimu al muhsinu alladi laa yuridu siwa mardatillah fi kulli aqwalihi wa afaalihi ab murit mooy aji ku gëm yàlla mënuloo nekk ab murit te nekkoo aji gëm wala nga nekk nga nekk ab jullit nekk aji koy rafetal te loolu moo dellowaat ci ñett yi sëñ bi wax ne ci la tënk yoon wi muy iimaan islaam ihsaan kon faw nga nekk mu'min nekk muslim nekk muhsin Sëriñ Tuubaa wax ne nag ñetti melo yii kum dajewul fi fi yow maanaam boo nekkul mu'min nekkoo muslim nekkoo muhsin nee na jamono bi nga ma wut see ngir bëgg ànd ak man ca saasa la la yàlla daq ba nga sori ma nga xam ne ku ko doonul man ngaa jàpp ne yaag sëñ bi yéen a ànd waaye sëñ bi moom nee na sori nga ma boo delloo ca wakkaane xaqan alaynaa nasrul muminin ma ngay wax na adhabta fawran li siwaana kulla man laysa yakunu muminan ya za zaman adhabta fawran li siwaana kulla man ليس يكون مسلما يا ذا سمن اذهبت فورا لسوانا كل من ليس يكون محسنا يا ذا سمن كن المريد والمؤمن المسلم المحسن واي الذي لا يريد سوى مرضات الله في كل اقواله وافعاله اب مريد موي كو خامني لب لوي جوج دي ووت نغرمول يالا رك لا تي صاف ان المريد لا يريد ابدا غير رضا الرحمن اي سقصرا سيرن توبا نينا اب مريد فم مانا جيم ген بëgg la wara am lenn wara a nekk yitteem te moy ngërëmul yalla ngërëmul yalla nak day loh xamne ne ab say say du ko am Serigne Touba dafa am ku ma sa ñew fi mom nako ko dama bëgg nga wax ma lo may sante ma di la ko liggéeyal serigne bi nako bo de ma ñaanal yalla te bo may ñaanal yalla de ko waxe ni del wax ne yow yalla borom sa jam bi ni wax ahmadu Bamba ne da bëgg nga def ko no bëgg sa jam mel ni ndax yow man nga bëgg mel nen fekk ni nga bëgg mel bokul ak ni nga wara mel wala non yalla bëgg ni señ mi nako nak ma ñaanal yalla nako sa jaam bi nuyu ahmadou bamba ne da bëgg nga def ko no no bëgg sa jaam mel da ko ci tegal nako ba bo boo leen di ñaan yalla da ngeen ko ñaan lu dul mayib say say da nako ndax xam ngeen lu yalla dul mayib say say mu ne tek mu ne ko mooy ngërëmam lu dul ngërëmul yalla ab say say da nako am ngërëmul yalla rek la ab say say du am moo señ tuba na ab mourid nak ngërëmul yalla rek wala mut daa di wax ne yeen ñi ma ngi leen di yeen nabatukum maan ala kadin bada lii qabla al ara rëddal mabda nee na na ngeen xam na ngeen yeewu ne jëkk ngeen di gis xéewal yi daje fi man ak ngërëmul yàlla lii ab coonaa ko jiitu Sëriñ Tuubaa de bu nee la bëgg na ñetti dërëm maanaam naar bu ñuy wax Asan Chérif bindal ko ñetti téere ca Pataar Sëriñ Tuubaa war koo fay ñetti dërëm toog bind ab kaamil ba mu yegg maanaam at mi mu ko war a fayee bi mu ñëwee sëñ bi faggandikuwul ñetti dërëm yooyu sëñ bi toog bind ab kaamil ànd ak ñaari taalibeem ya maam Cerno Birahim ak Cheikh Massamba Diop saam war diggante Kajoor ak Bawal di jaay téere bi ngir bu buñ ko jëndee mu fay naar bi kenn jëndu téere bi ba noppi boole ci di reetaan Cheikh Ahmadou Bamba ñu ne la sëñ Tuubaa toll na jamono bëgg ñett dara mënu ko am téere bi di bidaayatul hidaaya bu imaamul Ghazali nga xam ne moom la def mu layin ak mu nawil nee na bi mu koy wecciku ab dërëm lañ ko ko jaayee moom sëñ Tuubaa waaye na amutoon dërëm ba mbubbam la joxe ngir jot téere boobu kon bëgg na ab téere joxe mbubbam ngir ab dërëm bëgg naa fay bor mënu koo fay di wër réew mi di jaayu téeréem te kenn jënd ko moo tax mu ne kon jëkk ngeen di gis ngërëmul yàlla li daje fi man na ngeen xam ne ay coonaa ko jut kon murit war naa ngeme ñàkk war naa ngeme tuumuranke war naa ngeme xiif war naa ngeme tuuma war naa ngeme noon ndax ak noflaay ma ne su am lu may ginnaaw ab coono mu it am na melo yooyu faw mu daje ci murit bi sëñ bi dafa tënk lu yéeme dafa wax ne sifatu sadiqin muridin bi ixtisaar أربعة نظمتها خلف اقترار باب مجك فكل من جمع هذه الصفات من المريدين فيدرك ثقات ma mujj dafa wax ne melo yu murit dama ko yaxal way ko nos ko muy ñeent ngir bañ ak woru kon sëñ bi xamoon na ne woru dana am mu ne fa kullu man jamaa nag ku boole waxul nga nga jàpp ñaar bàyyi ñaar waxul nga jàpp ñett bàyyi benn fa kullu man jamaa dane ku bëgg jot gaaña bokk ci ñu wér ñett bokk ca murid saadix ya faw nga dajale ñeent yëpp lu tax mu ne damay bañ ko waru dafa am bis mu ubbi ci njaareem yam ci Cheikh ma Samba Mbakke na ko ma Samba mu ne ko Mbakke mu ne ko sama borom won na ma sama ëllëgi jamono won na ma li koy yàq waaye jox na ma lu koy fekk ba fekk naa ko maanaam nga xam ne kenn mënta yàqal Cheikh Ahmadou Bam ndax fi àdduna di yam ëllëg ak li ciy xew lépp yàlla xamal na ko ko wax ko li fiy yàq ba noppi jox ko jumtukaay yu ko mën a fege mu ne damay bañ na ngeen waru moo tax ñeent yi daal sukkandiku tamit dëgg ci yow te faw nga bokk ca gaay bu ca njëkk as sidqu fi mahabbati cheikh abad mooy dëggal ci bëgg sëñ bi kon sëñ Tuubaa bëgg la jëkk jëkka tànn lu tax dañuy wax ne al mahabbatu hiya su taa ak cofeel mooy fondement ak topp maanaam bu fekkee ne bëgg ngaa tabax dara faw nga defal ko fondement bu dëgër ñu ne nag ak cofeel moo jëkk ci lépp lu nit di wut ci sëñ bi ngir di ko sakku sëñ Tuubaa nee na bu nu jëloon asamaan ak suuf def ko lepp wurus ak or ak khalis na la jëlal neena mu def ci sa xol nga bëgg sa sëriñ moko gën ci yow fal hubbu khayru mali shakhsin shaxsin uhibba lépp loo am ci kaw suuf bëgg ko gën lutax bëgg gogou sëriñ touba borom xam-xam dañuy wax ne bëgg nitu yalla tekkal la ci bëgg yalla sa borom ñu neen ngir ku yalla nëmmul ci yow nga texé du tabal ci sa xol nga bëgg nitu yalla am ko wax ne mboolem jaamu yalla yep ken jaamuwul yalla lu toll ni bëgg nitu yàlla kenn jaamuwul yàlla lu toll ni bëgg nitu yàlla kon bëgg nitu yàlla teg tegtal na ci bëgg yàlla sa borom ñu ne moo jiitu boo nee nan laay bëggee sëñ bi da ngay dellu ci ni Cheikh Ahmadou Bamba bëggee woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alal doom ay taalibe ay dëkk deretam jëmmam lépp da ko jox rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ngir cofeel gi mu am ci moom mahat محبتي المختار سيدنا حب المغاني والأهلين والولد دمي وأهلي وأولادي فداء له عبدا قديما له مسكانا لي سندا داول نغو علال بغول دوم بغول طالب غير رسول الله صلى الله عليه وسلم waxna ne bu fekkone yonent bi dafa am bor buñ koy fayu ku romb sama doom yóbbaaleel ku romb sama taalibe yóbbaaleel bu fa yooyu yépp nekkut sama deret bu ca sosee jël leen sama deret fayee ko borom rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bëgg yonent ba yegg ci wax ne man de bu ma séenoon Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi ma ànd ak moom ñuy dox mu yëkkati ndëggul tànkam la bëgg koo teg ci dégg sëñ Tuubaa nee na du ma dandale dégg bu jiit jëmoon ci Rasulullah it bëgg a fett tànkub Rasulullah wala jaan bëgg a matt tànkub Rasulullah sëñ Tuubaa nee na du ma rey jaan ja du daq dàq jiit ja ñu ne nooy def mu ne xadil wiqaayatu li rijlil mujtaba an shawkatin wa ma yudaha aqraba bu ne jëyi tankam bu ko ci deggi sama ben lekh bi lay tëral ci deggi rasul lay tek tankam ci benen wet ga ci kaw bu ko jiit bëggoon a fet ba jan bu ko matit lekh bi lay kon xaddil wi li rijlil mujtaba an shawkati ma yudaha aqraba ko xamne ne bu rasul lay bëggoon a joggi deg sab tank lay sab lekh lay tëral rasul lay alaihi wasallam joggi ci beug gogu beug ali sallallahu alaihi wasallam beugul dom bim nekk ci njabot gi tawat seigne Modou sëriñ Fadilu Cheikh Mouhamad Lamine Baara sa guy Goraa nga xam ne booba ak mbay dee la maam Thierno amul fu mu dëkk ak njabootu sëñ Tuubaa gi daana fanaan cim sàq ngir ñàkk fu dëkk nga xam ne keroog bi sëñ Modou Sa tawatee sëñ Fallu tawat Cheikh Mouhamad Lamine Baara tawat borom daaru dafa julli ñaar rakk ñaan yàlla na ko sama kilifa gu baax gii bu naree ñëw ma koy laaxat na ko njaboot gi kenn fàttu na na sëñ Modou Awa Balla mii di sama taw jiitu w soxna wala man mii ma dem waaye bu sëñ Touba ñëw mukk ma koy laaxal na ko kenn wàcc ko ne ci njaboot bi sëñ Touba yégee ne sëñ Modou Moussa dafa tawat sëñ lu tawat sëñ Baara tawat sëñ Touba ñaanul sëñ Modou Moussa wér ñaanul sëñ Fallou wér ñaanul sëñ Baara wér ngir bëgg rasulullahi dafa wax ne Muhammadul Mustafa bi yeddi rasulullahi fal yaqali daa ma moo bi Modou Moustapha de ma nga cay loxo yonente bi sallallahu alayhi wasallam lu tawat ji man na ko def ci Moustapha daan fallu moom yàlla laa ko bataleel Mouhamadou Lamine bi yeddil qur'aani falyafalida macha bi Mouhamadou Lamine Baara nag alquran laa ko bataleel lu tawat di mën na ko def ci moom nga xam ne ñaanul ngir genn doomam wér dana kii Seex Rasulaay laa ko jox kii yàlla laa ko jox kii it ma jox ko alquranul karim loolu mooy bëgg kon bëgg googu mu bëgg yonent bi moo tax benn bindikat nee na ko adaaba qalbuka xubbul xibbi yaa sanada fa xubba xibbika yamuhu bakkal wala den kon bëgg yonent bi kon yow murit bi sëriñ bi la war a gën a lépp ndax sëriñ ba jaxat nee ne sëriñ bi yaa gën alal yaa gën barab gënu nit ko mooy ci yow mucc am mboole mébél yi asal loo bëgg te bëgg caa jot rek sëñ bee ci gën a gaaw kon boobu moo jëkk ci melaw murit ba ca topp mooy imsaalu amri ay suwarat mooy foo déggee ndigal jóg rapport bi boole taalibe bi ak sëñ bi mooy ndigal sëriñ Bay Jaxate nee na lu dul ndigal amul njariñ te kat xamal ne ab sëriñ du bëgg nit ba foog njariñ jox ko te toppul ndigalam boo bëggatee ki sab sëriñ lenn njariñ jox koy njariñ sëriñ ko koy joxe njariñ mu di la njariñam kon talibé bi bu doon bokk ak sëñ bi ben ndap di tëdd ci neek sëñ bi sëñ bi sibi mbubam di ko jox te bu ko digalee du def bu ko téré du ko bayyi du ko jariñ dara li wolof njaay di wax né dakar du wom ku ko mëccul moy ndigal ku ko jëfewut du la jariñ li tax talibé yu baree bari sama classe bi seenu dox yeex bo demoon ci docteur mu consulté la bindal la ordinance nga dem ci pharmacie bi jënd ko mu ne la waaye nanga nga bàyyi ndawalu guddi nanga nga bàyyi sukkar na nga bàyyi na bàyyi na nga bàyyi tere la yu bari nga boole naan garab yi ba noppi te bàyyiwoo li muy tere doo wér bari na ñoo xam ne ñu ngi góor góorgóorlu di ijjantu ci xasaayid yi di jàngantu alxuraan di jéem a jaamu waaye nag léegi-léegi yenn tere dañ ko dul bàyyi loolu mooy tax yegg jafe nga naan moo ne waxoon nañ ne ku jàpp nangam dem ku jàpp nangam dem waaye di naani garab ngir wér ba noppi tey naan lu koy yokk du tax a kon ndigal mooy tax taalibe bi yegg fam jëm ba ca topp mooy tarkul ixtiraat mutlaqan wala bat na ali fi ma rawoon te lu baree ngoog mooy bàyyi dii ngat sëñ bi doon ko ne da ngaa wéet ne ci sa néeg di nelaw yow képp di di dii ngat sëñ bi yaa ngi yàqu soxna fat ja muy taawub sëriñ tubaa nga xam ne sëriñ tubaa moo seere ne murid sadiq la benn naar moo ne ko gis naa soxna Fatima sëñ Touba ne ko innaha muridatun sadiqa sëñ Touba ne na soxna fat ja murid sadiq la soxna fat ja nee ab sëriñ ab seetu la ab seetu kenn du xees mu lay ñuulal kenn du ñuul lay xeesal saa yoo toogee di yëg ne sëñ bi sikka ngi ci moom dawal defaru ji saytaane ngi la yàqal al ixtiraat moo tax dama waxoon ne juróom benn day yàq ak murit te taalibe yu néew ñoo ci mu ci léegi sëñ bi daa na sëñ bi na lu tax sëñ bi lépp ak sëñ bee murit laa waaye sëñ bee kipput loolu day yàq ak murit te loolu lu baree bari la sëñ bi daa waroon na sëñ bi na lu tax sëñ bi lépp ak sëñ bee murit laa waaye sëñ bee kipput bu señ bi noppé nga né da wara wax señ bi mom ci bopam wax la wara def señ bi wax nga né da wara nopp lepp ak señ bi ndax mo wax lo diiw man né mourid la waye luma ma enraciwut señ bi dal dal di cëppatu lol day yak ak mourid te te law bi bootu leen lañ wax sax waxu ñu lañu koy garam placé ci yi di waxtane ne ci deri señ yi waxu ñu lañ ci yow bo sa ne kep ci sa mbalan bi sangu di xalam lolou ya nga kon ab taalibe bi du de ñet ab sëriñ ba ca topp mooy wa maahu salabul ixtiyaar li zannihi bi la inkaar ab taalibi du tànnal boppam aw yiiw newul ci li nga tànn waaye aw yiiw ma nga ca lañ la tànnal kon murit bi day bàyyee boppam ak sëriñ bi sëñ Tuubaa mag ñi daanoon ko fekk ba Céyeen daanoon ko fekk ba Gànnaar njaaréem lan la ñuy yónnee laaj turu doom ñoom daawu ñu def dara te amuñu ndigal sëñ Tuubaa nag fa kullu man jamaa haadihi sifaat ku góor góor lu ba yii daje ci yow faaw nga jot gaañ boo bëggee sëñ bi da ngay bëgg lepp señ bo bëgge señ lepp señ bi ngay bëgg ndax señ tuba bi mu bëggee yonent bi sallallahu alayhi wasallam lepp yonent bi la bëgg day def tawassul ci ay doomam diko def ci ay setam diko def ci ay dekkam diko def ci ay soxnam diko def ci ay saxaabaam leppam ngir bëgg gi mu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam yoy bo bëgge señ tuba lepp señ tuba ngay bëgg do doo xajale do do do do doo diingat do weddi sëñ Tuubaa nee na ab murit day mel ni néew ab néew buñ buñ tëral di ko sang du wax ki may sang nii la may sange wala nee la may sange ab murit yi sëñ Tuubaa nee na ida arada al murid al intifaa yaxtaqidu bi anna sheyqahu waasila baynahu wa na rabbi sëñ Tuubaa nee na ab murit bu naree jariñu day fas ci xolam ne sëriñam mooy ki dox digganteem ak boroomam daan na sëriñam du ko digal lu mooy lu ko yàlla digal du ko teree lu mooy lu ko yàlla tere foofu sëñ bi daal di ñuy wax ne képp ku leen di tegtal yàlla képp ku leen di tegtal yàlla na ngeen ko bëgg na ngeen ko topp ku leen di won lu dul yàlla na ngeen ko daw woon ko ginnaaw wa man ala gayri ilahi dallaka fa firra minhu innahu adallaka sëñ Tuubaa nee na képp ku lay joxoñ lu dul yàlla won ko ginnaaw ndax da réer loo sëriñ Tuubaa wax ne ab sëriñ it day am lu muy mel ci lu gàtt la ko dëng dana fa cheikh laa yuxaalifu mu shafaa faman naha amrun rabbin tafa'a sëñ Tuubaa nee na ab serigne foko fek du juuyoo ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam. moy la yalla diglé yaronte bi sallallahu alaihi wasallam. Andiko. ci lay nek lam téré da koy bayyi mune boko amé nak bu la digalee na nga def bu la téré na nga bayyi serigne bi daal di waxaat ne murit bi bëgg yegg ci yalla boromam it nga xamné mo soobu di dem dafa am ñetti gannaay yu mu yobulo mooy faw mu am aliment dund bu wóor mu muy dund ndax ak màggam ak dox jëm ci yàlla am gaaw waaye faw faw mu am ab yóbbal waaye faw it ah, mu am gànnaay gu muy yor ndax yoon moom jëm sëñ Tuubaa wax ne xayru taamin li muridi saliki dawaa mu dikri di jalali malik sëñ Tuubaa nee na yoon wi gën ci ab murid mu yegg ci yàlla boromam nee na mooy nay saxo tudd yàlla mooy jàng alquran ak xasaayid ndax xasaayid yi alquran la xasaayid yi tudd yàlla la kitaabati dikrun wa shukrun wa sadaat allahu arshada xilaami wal midad kon boo dee si xasida yaa ngi def dikr yaa ngi tudd yàlla sëñ Tuubaa kon na ngay saxoo tudd yàlla kon murit dangay ngay dégg ne xasida ak moo war a riir ci noppam waaye ab ab murit du wétti li ko musique musique day reyub xol sëñ Tuubaa ne dund bi tax perantal bu fer ba noppi di lekk suuf day xiiboon taman mën naa faatu musique day reyub xol sa xol jagg doo jajju doo waaru Do do mel nen motax seigne touba ne ñam wi gën khairu taami li murid di ñam wi gën ci murid bi bëgg yegg ci yalla dawa mu dikri sir jilali mari saxo tuddu yalla lo dakk jang alxuraan dakk jang kasida saxol gëna set ngay gëna jégué yalla di jégué gëna jégué seigne bi lo dakk diglu musique dakk diglu tiaxan di gëna sori yalla di gëna sori seigne bi mune ne ama silaahu faqul sayf wa rahbihi yakunu qati'an hablu tama ki bëgg dox jëm ci faaw mu yor gannaay seigne touba ne geesi ji ab murid di yor bu bëgg yegg moy sam ab murid day Sam, Sam ci lu new ak ci lu bari ab murid du sacc lan moy sacc moy wane ci kaw señ bi te sa bir lepp dig bu nit ñi dajé nga yor sa dollu di ming te bo wété di seetaan lu jaaduwul bu nit ñi togué ngay rocc rocc li per nan askay te bo wété di fen ak a jëw loolu du melaw murid sëñ tubaa dana duumu ala ibadati lillahi abada fi kulli ma xan ikhtafa aw xan bada ni nga mel dal neel nan ñi ñepp xamne ni nga mel bo wété it melal non waye woné ci kaw ba ñepp na sa way sadiq la ta fekk biir ga dara jagut koku ab satch da ngay sam motax tax léeg nga dégg ku ku génn ci télévision bi man murit la seigne bamba rek la gëm bay fàll laa damay door war lett bopam bëndi noppam xéssal fecc pakkar ñuko sol melo murit sol dégisma bay fall solu casquette tak ab jéngal fenn fu rek ngay nuru murit tay feccal ay jigen ak feccali gor tanan seigne touba la laa man seigne bamba la gëm seigne touba neena eh yow mi ma yaakaar li ma la njëkk a dénk bàyyi lu xaraam ak lu ñu sib fi ne bul sëñ Tuubaa bi ko sëñ Abdou Xaadir di nettali léegi kuy jàng xasida sàngam sëñ Tuubaa nee na maa la waralul nangam ku jàng xasida sàngam maa la waralul nangam nga kontaan dëgg dégg ko sëñ Tuubaa nag moo waxaat ne wasaytukum yaa man taallaqu biya fi sirri wal jahli li wacc rabbiya an tatruku muharraman wa ma kuli li wacc rabbikum kullu mushrik nee na ku aju ci man li ma la dénk bàyyi lu xaraam bàyyi lu ne fecc daa xaraam carte daa xaraam lamb daa xaraam lépp daa xaraam jëm ci sëñ bay dëgg ku ca ne na ci leneen sëñ bay la digal na la bàyyi ko man alima al jamia fal yufaariqa wa man biha jahila fal yurafiqa sëñ Tuubaa nee na boo ko xamut demal wuti ko la ko jàngal ndax bari na koo xam ne waxtu wi daaw xamul lan mooy Facebook xamul ni ñuy connecté mais góorgóorlu na ba ren am na portable mën naa connecté di jënd crédit na nga ca góorgóorloo nag ba mën a connecté góorgóorlu ba xam li la sëñ bi digal ak lim la teg téeméeri junni na nuuru daari ni nga jàng ko fanweeri junni jaalibatu maraaxi bi nga jàng ko te xamoo lu sëñ bi digleeg li muy tere sëñ Tuubaa mi bind nuuru daari ni bind jaalibatu maraaxi bi moo bind mu nay naawiru sudur moo bind mu layin moo bind jawaru nafis moo bind masaalikul jinaan moo bind moo bind kon murit bi nay jàng xasaayit xam li sëñ bi diglee te moytu la muy tere sëñ bi nee na ko aju ci man loolu la dénk daal di wax ne moom Serigne Touba na ah julli gi ah sëñ li mu wax engagé na mboolem kuy woote sëñ Tuubaa nee ta wa man tawajjat annaasu ilayhi wa tawajjaha huwa ila nafsi aw ila anfusihim dafa'ahum rabbu naas ila naari lati waquudaha naasu wal hijaara sëñ Tuubaa nee na képp ku nit ñi topp na la yabal te néewoo leen yàllaa ngee lu woon lu may nga leen maa ngi baa nga ne leen yéen yéen a ngi nii sëñ Tuubaa na yàlla dana leen boole wam ma tabbal sawara kon ñi ni topp riir meeg rëg-rëg yéeg rëgaj-rëgaj ji ak ambiance bi ci yoon wi te kiy wamati xam fu mu jëm ñi muy womat xam fu mu leen jëmee ngeen jëm yéen ñépp woote yi bari na ku ne naan maa yegg ak maa kose ku yegg mooy ku topp yàlla ku toppul yàlla yëggoo kon ñu jàllale noonu di door a ñëw ci soññee bi ñu war a soññee ci kër gi bismillah bi nga xam ne kon tomb bi sëñ bi tànnoon ngir wax ne nu waxtaane ci ak taali bi ngir yeesal yoon wi nga xam ne ci lañ mën a jaar ba li ñuy sàkk lu nekk ñu mën koo ñu mën ko am sëriñ bi dafa wax ne ak taalibe bi bokk na ca mooy bu cofeel amee liggéey am addiya tuuba li abdin muridin saadiqin lahumu bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyat gis nga ñaar dugal tàbbal benn bi ci digg bi xidma ak hadiya def mahaba ci digg bi لجي بغا كوي ومات لوتاخ دعاني لاقدام النبي حب ذاتي كون خيت ما منتا موك تا موت كون سا يو كفيل دغو لجي دال يوم وايي بو تشوفيل اميل لجي ام joxe tay top muy hadiya kon da ngay ba base bi di di di di ak bëgg jëf joxe seigne Moussa Ka neena amana kuñu nan muridun saadixun ta fekk koko moy maridun saarixun day bay di lek du joxe hidayah koko moy murid buy sakki wurna gaye bu nee murit mu gaaw ne mbakke bal la te xam ne moos du bu nee murit mu gaaw ne mbakke bal la te xam ne moos du wuy ji woote bi yàlla bari nañu yoon wi lu woote ñu ñëw ku woote ñu ñëw pëstéef beeg mbub mu rëy meeg yépp waaye duñ weesu jawrin maa ngi sa ginnaaw de fasaale ak ëskey kepp dara sotti ëskey yeeg maa ngi fasaale maa ngi sa ginnaaw loolu dara sotti yoon wi yoonu jëf la bu nit defé rek ak njàmbaara mëna kon murid deug yombul la yombay nga wax ne murid deug la ta do am murit serigne bakki Bousso mu baax ma radiyallahu taala nee na daa mas bindal serigne lettre jëme ko ci kilifa gu mag ne bama né ne muridin sadiqin serigne bi na ma ya ko séré té légui ñi la dàq caaxaan ñoom lañ gën a ak murit kon sëñ bi murit saadix mbir la moo xam ne tudd ko daal bari nay turandoo waaye néew na ngir nit nekk ca sëñ Tuba seereel na ko koo xam ne bi mu koy seereel murit googu ñaari way juróom ngi toog Cheikh Issa Dieng a ngi toog Cheikh Ibrahima Fall a ngi toog muy sëñ Baara Dieng sëñ Tuba di wargal boppam xel lib kaas daan na ko jàpp sëñ Baara Jeen na ko yow am Mouhamadou Lamine yow mi di murit kon loola wane na ne ak murit mooy jariñ nit te way juróom woowu Cheikh Issa Dieng daa toog fi sëñ Tuubaa ba yàgg mu ne ko Mbàkke yow de da ngaa nuru yonent bi ba nuru ko tur yu bari daam Mbàkkeeg borom Tuubaa Xaadimu Rasuul ak yaakaari jaam ñeeg borom tey ak ëllëg ak lim ba yàggal na ko waaye wóor na ma ne tur yooyu li muy bari bari kenn du la ko wooy yowmal xiyaam sa turu biir wi lay wooye yowmal xiyaam laa bëgg nga wax ma sëñ Tuubaa ne ko Issa Diagne jógal foofu ana ku ne la am naa turu biir jógal foofu Cheikh Issa dox juróom-ñaari jéego sëñ bi woo ko mu ñu ko loo ci jublu biig biig rek sëñ Sidi Naar Diagne nettaliwaat na ma ko maa ngi moom ci biir sala te sëñ Sidi Naar Naar Diagne nee na ma sëñ Baara Diagne ma ko nettali ca Ndakaaru nee na sëñ bi ne ko loo jublu mu ne ko duma ci fal kenn duma ci folli kenn mu ne ko baa kenn du ko xam mu ne ko Mouhamadou Lamine Diagne mii di sama taaw sax du señ mi ne ko jegesil cheikh isa jege señ touba tofle ko ci dan na ko tur woowu ku dul ak rasulullahi xamoko mom lañ ma woyé yomal xiyam dan na ko tur woowu nag ku ci wo don ko ne barsàq la nek dana la wuy ci sa ta ku ko xam ya upp juróom-ñaar fukki junniy wala yu kattan turu biiru cheikh ahmadou ba kon lolu kon bu nu ko amé bëgg a señ bi day woné né señ touba mom du yi du ñi du ñé du ñëlé loolu loolu pour mu leer léegi nag Cheikh Abdou Lahad Mbacké mii dafa am taxawaay bu rëy bu mu am waa mbokk yi maa ngi laaj benn jet benn laaj daaray kaamil fan la am ci àdduna ah ah ket rek dong kon ma ñëw këru xasiida foo leen ko dégg ci àdduna ku yàlla taw lé mu jëkk koo wax ci yoonu murid Cheikh Abdou Lahad Mbacké moo ko wax ci yoonu murid moom Cheikh Abdou Lahad Mbacké yi mii moo wax ci yoonu murid loolu moom jaglee mam ni juróom-ñaari sooro doona jagle ci Cheikh Sidi Mokhtar sëñ Tuubaa dafa ci nuuru daari ni baat bopp saa yoo lambe ci gaay bi fekk ko ci maa salaamin li yaquudu mufahima dawil gila wa nukri xaqan afhama sëñ Tuubaa ne na jamono bu nekk yàlla damay womatal kuy wedem loo ñi may diingat ak di ma bañ bët bu set da koy womat se ne saa yu gars yi tàmbalee karang-karang rek mu andi mbër dóor ci seen kaw ñu ne suluñ bala ñoo jóg bay faxasuwaat mu andi meneen mun a tuyu ñu ne suluñ bala ngaa jóg mun a suluñ maa salaamin li yaquudu mufhima dawil xilaa wa nuqri xaqan axama xanaa nun ñii toog fi kenn ku ne am na yéene tabaxal Cheikh Ahmadou Bamba kër xanaa ab murit de lu néew néew kàttan moom bëgg na gaal bu mu def xasida gaalu xasida kooku bu amoon doole it néegu xasida tabax ko de kër taxut muy wax Cheikh Abdou Lahad Mbacké kër gii mu woote tuuba néewul doomam a koy donn de néewul ab sëtam de néewul jarbaatam de ci patrimoine Cheikh Ahmadou Bamba la bokk comme moom daaray kamil moom jumaa ja moom murid yi moo koy moom muy si Ahmadou Bamba kenn du ko moom kenn du moom waaw kon ma bëgg nak waxaguma dara waye dama bëgg ñu dajaleel ma fi ba noppi señ señ euh, abdou ndiaye mu baax mii jaaribatu maraxib kenn ku la jël contactam ku man ci ma def li findi fini fer ko man señ abdou lu ko nak nak mom tambali na xaru kenn bu dee jaay auto ma nga ca bu jaay nangam ma nga ca xaru kenn waye ndaje mu melni amna ñu ami bakkaar am ñoom la ñu soti wul ku bëgg sa mbir rek la joxel nañ jaayante ba noppi balaa dara xew. te turandoo mu am tawféexu mu am tawféex yi defar daaree kaamil kon nuy nan bokk ci tawféex jooju. day mel ni continuité la rek. loolu ba tay day wéy ba day wéy ba faw Cheikh Abdou woote woon daaree kaamil Cheikh Abdou Lahad Mbacké woote nan jaayante ku man tonu ciment la ko jaayante ku mën téeméeri ton jaayanteel ku mën benn saako ciment jaayanteel. dara la dul moom yàlla bëggul moom ku dëddu Bamba maanaam ku àndul ak sëñ ba jaxate ko wax ne ku àndul ak moom. dara la dul moom yàlla bëggul moom ku dëdd bamba daan na moo sedd ab xol te dal am xel te buuri gëtit te doy sëriñ sépp ak yéefari kenn yëbu moo dib sëriñ dëgg moo dib sang kenn gisagul ceemam ci suuf si la muy dox yàlla sompalu ko alhamdulillahi nun am nañ sëriñ bu nu doy bu nuy fegal bépp lépp loo xam ne bëggunu ko kooku mënu ciy dimbale wasalaamaaleykum wa rahmatullah ci àdduna ba ca Tuubaa Ndakaaru ba Touba Johannesburg Touba Lisbonne ba Touba Atlanta Touba Montréal ba Touba Rio de Janeiro Touba Pakistan ba Touba Australie murit jóg taxaw jot na lu tax noon bi sañ tey lu mu sañul woon démb lu waral ñun la ñuy wut bëgg noo lor jot na ñëpp dégg nu li war suñu digganteeg sëriñ bi kenn lu nu ko defal sëriñ bi rek jaaxal jamono sëriñ bi rek moo te ñëpp sëriñ bee taxawal yàlla ni jot na jot na nun murit nu wone ci lu dul dootu dakk melo yii nu sëriñ bi melal bu nu bëggee taxaw yii ponk la ñuy taxawee doon benn ngir sëriñ bi bàyyi xel ci lépp ak fépp ni jar ngir sëriñ bi tënku ci melokaanu murit dogu ci jub ak jubal sëriñ bi mag ña defar démb duñu fi jóg jël seeni melo di li nu war ñoom magi mag sëriñ Mor ndaamal daarul sëriñ Thierno borom gaawaan Cheikh Anta Cheikh Mandou Bek Xabaan sëriñ Daaru Asan Cheikh Massamba Diop Sam sëriñ Daam Abdourahman Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridiin ak mag mu sëriñ bi defar te ñu ànd fesal kuréelu gaay yàlla yi kuréelu gaay yu baax yooyu yi nga xam ni ñoo jaaxal seytaane tër ay àndandoom ba tey tegtal yuy tey te ku ne man cee jànge mooy Serigne Modou Aliou Fall moom mooy tur Serigne Touba bi taalibe Cheikh Ibrahima Fall Lamp bi moo jàngal xarnu yii nu ab murit di mel nanu ko roy ci lenn ci jikkoom ya yar teggin worma jom dégg ndigal jaamu yàlla nangoo liggéey nanu dekkalaat jataayi muritu démb ya commencé ñëw da doone ana sëriñ bi ana sunu colka turkiya fawqiya bàyyi laat sooyibu a melaw murit wii ñuur ana melaw murit wii ñu nuróowul kenn murit nañu xerewlu dellu jaajuwaat ku la yeb ci saw doxina nañu bañ lii di nuru lu bees te du ak murit murit du ràpp murit du xomaag murit du wel di murit duñu moderne lu fi sëriñ bi tëgg la ba ko mu war a wéy ba ñeenti téeméeri at sëriñ bi borom jamono sëriñ bi moo moom espace sëriñ bi moo moom temps li mu bëgg fii bind na ko li nu war def wax na ko nanu ko def yàlla nanu yàlla yanoon nanu li diwus ak sag bi yàlla amul lu murit ci kaw suuf adduna bii noo ko moom aljana murit ya lay xaar nu sagale ni lislaam mooy am ndam noon bi torox ni tot ni xufit jërëjëf ci borom Tuubaa ku ko fi ni ñukk ñun la fi wa aslihan ummata appel au par Serigne Touba pour Serigne Touba mouride d'ici mouride d'ailleurs mouride de Touba dans le monde mouride de Touba à Touba Johannesburg mouride de Touba Lisbonne à Touba Atlanta de Touba Montréal à Touba Rio de Janeiro de Touba Pakistan à Touba Australie mouride l'heure est au sursaut pourquoi sommes-nous toujours visés Pourquoi restons-nous les seuls à être attaqués Réagissons. Personne ne fera à notre place ce que nous pouvons et devons faire pour Serine Touba. Même si nous savons que tout, que Serine Touba reste la principale cible, nous mourir sommes interpellés au premier chef à réagir vigoureusement pour restaurer la dignité humaine selon les nobles, les canons nobles qu'il nous a enseignés. Nous ne pouvons le faire que si nous restons unis en Serine Touba vigilant en tout, attaché aux nobles idéaux de la Mouridia, combattant des causes justes et de la vérité d'Allah. Nous avons des valeurs et des vertus. Ces fondamentaux de la tradition mouride qui ont fait ces icônes chanter hier, aujourd'hui et demain. Prenons comme référence et faisons vivre Magui Mag, Serine Mor, Ndamal Darou, Serine Tcharno, Bram Gawan, Cheikh Anta, Cheikh Manoube Khaban, Serine Darou Hassan, Serine Massamba Diop Sam, Serigne Abdurrahman, Cheikh Ibrahim Fallam, Babu Mouridou et tous les autres grands qui ont contribué à perpétuer par Serigne Touba la lignée des hommes de Dieu, des hommes de bien qui ont détourné Satan de lapider et enterré ses sujets d'alors. Inspirons-nous du contemporain de Serigne Touba Cheikh Salim, Serigne Moudamin Tefal, ce Mourid de Serigne Touba, disciple de Cheikh Ibrahim Fall, qui a su capitaliser la tradition mouride pour être le modèle de Mourid achevé de ce 21e siècle. Il a su le faire car il est resté ancré à nos valeurs que sont yar teggin warma Djom, ndigal Djamouyam Yalla recréons les assemblées mouridières où le chef était lui seul mis en valeur prenons parlons nous de nos habits mourides Turkia, Faukria, Bailar, soyibu ces habits qui ne font que magnifier notre identité authentique et unique de mouride Revenons à nous-mêmes et retrouver notre essence de mourir. Refusons ce modernisme sans âme de nos pensées et actes d'aujourd'hui. Serine Touba transcende les espaces et le temps. Il a réfléchi pour toute la vie. C'est pourquoi il a dit qu'il décidera pour cette vie sur terre par Allah et pour Allah d'ici 400 ans. Il a dessiné dans ses écrits la société idéale dans laquelle les croyants doivent vivre. Réalisons-la. Nous avons tout pour gagner. Gagnons. Nous sommes tout ce que Allah honore. La vie nous appartient, le paradis céleste nous est réservé. Notre premier allié, Allah, a signé dans son Coran qu'il parachèvera la lumière, n'en déplaise aux incrédules et aux mécréants, qui ne connaîtront plus la paix, car nous sommes debout. Voilà la quintessence de la prière de Sérine Touba, améliore le sort de la communauté du meilleur des messagers et dissipe leur angoisse wa aslih an ummata xayra mursali wa farrijan anhum jamian ya ali barke borom tub بسم الله الرحمن الرحيم كل for all the Murid awareness by Serin Tuba for Serin Tuba. Murid of here, Murid of there, Murid all around the world. From Tuba, Dakar to Tuba, Johannesburg. From Tuba, Lisbon to Tuba and Lara. From Tuba, Montreal to Tuba, Rio de Janeiro. From Tuba, Pakistan to Tuba, Australia. Murid, the time of awareness has come. Why are we always targeted? Why are we always the one who are attacked? We need to react, Murid. Serin Tuba will not do for us what we can and should do for him. Even if we know that Serin Tuba remains the main target. We Muri have the responsibility to react strongly, I say strongly, in order to restore the human dignity. We can, yes, we can. We can succeed only if we are united, careful in everything. We keep our ties to noble ideas of Muridism. We fighters of the just and noble causes in defending the throne of God. Let us come. Let us come back to our values, which are foundation of the Murid tradition with its respective icon in the past, in the present, and obviously in the future. Let us come back to our value, which are foundation of the Murid tradition with its respective icon in the past, in the present, and of course in the future. Let us rebound Namal Daro, Mam Cherno Birahim, Borom Gawan, Mam Cheikh Anta, Magimak, Sirin Mor, cheikh Mandoumbe sëriñ Daro Assane Sheikh cheikh Massamba Diop Sam sëriñ Dam Abdourahman Lo Mam cheikh Ibrahim Afal Lamp Babul Mouridine and all the other great personalities that has contributed to perpetuate by Sëriñ Touba the lion of the saint man of God. Let us be inspired by the contemporary of Serigne Touba Cheikh Salih Serigne Modou Aminata Fall Cheikh Ibrahima Fall. A murid of Serigne Touba, disciple of Sheikh Ibrahima Fall, who has capitalized the tradition of Muridism in order, in order to be the model of achieved Murid of this 21st century. He succeeded in it because he followed deeply our noble values. Manners, respect to others, proud, law and order, adoration of God, hard working. Let us rebound the Murid assembly of the past where only the chief was the leading face. Let us wear again our Murid clothes. Turkiya, Fawqiya, Bailahat, by Sonyubu. Those qualities that can only magnify our authenticity to be murid. Let us get back to ourselves, to our murid essence. Let us reject the foreign modernism from our thinking and action. Time is space has no secret for Serin He has meditate all his life, and that's the reason he dedicated his life on earth to be by God and for God for the next 400 years. The life belongs to us. We murid ba ca ba faw. And God signed in these sent scripture that light will win over darkness. Invito a presentare la consapevolezza morire con Serin Touba, per Serintuba, Touba. di qui, morire di là, morire in tutto il mondo. Da Touba Dakar a Touba Johannesburg da Tuba Lisbone a Tuba Atlanta, da Tuba Montreal a Tuba Rio de Janeiro, da Tuba Pakistan a Tuba in Australia. Murid è giunto il momento di consapevolezza perché siamo sempre presi di mira, perché siamo sempre quelli che sono attacchi. Dobbiamo reagire. Serintuba non farà per noi ciò che possiamo e dobbiamo fare per lui. Dobbiamo reagire, anche se sappiamo che Serintuba rinane l'obiettivo principale, abbiamo, morire, abbiamo la responsabilità di reagire con forza al fine di, rispet- al fine di ripresentare la dignità umana. Possiamo avere successo solo se siamo uniti. Careful in ogni cosa abbiamo mantenere i nostri legami con i nobili ideali di muridismo. Torniamo ai nostri valori che sono fondamenti della tradizione muride con le sue icone, rispettati nel passato, nel presente e nel futuro. Cerchiamo di rinascere Ndamal Daru, Mam Cerno, Borom Gawan, Mam Cheikh Anta, Magimak, Serigne Mor, Cheikh Mandoumbe Khaban, Serigne Daaru Assane Ndiaye Cheikh Diop Massamba sëñ Massamba Diop Sam Serigne Dame Abdourahmane Lo maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babul Mouridine I tutti gli altri grandi predecessori che ha contribuito a perpetuare dal Serigne Touba la linea dei santi uomini di Dio. La Chiamoti Ispariti dalla contemporanea di Serintuba, Touba, Cheikh Salih Cheikh Modou Aminta Fall un murid di Serigne Touba di Cipolo di Cheikh Ibrahima che capitalizzato la tradizione della muridismo in modo di essere il modello di murid ragionto di questo 21 secolo Ali riuscì in essa perché ha seguito a fondo i nostri valori nobili manieri rispetto ad altri, orgoglioso, legge e ordine. Adorazione di Dio, laborazione. Cerchiamo di rinascere le assemblee murite del passato dove solo il capo era il volto di primo piano. Cerchiamo di indossare di nuovo i nostri vestiti muriti. turchi, fauqia, bailahat, baisoibu, che vestiti che poi ingrandire solo la nostra autenticità di essere muri. Torniamo a noi stessi, alla nostra essenza muride. Cerchiamo di respingere il modernismo, essere dal nostro pensiero e lì attiano. Tempo e spazio non ha nessuno segreto per Serin Tuba. E lì ha meditato tutta la vita. La regione ha dedicato la sua vita sul terra per essere da Dio, per Dio per i prossimi 400 anni. Abbiamo tutto per vincere, siamo tutto quello che Dio vuole che siamo. La vita ci appartiene. Murit, Bacakau, Bacakanam. E Dio ha in questa scrittura santi che illuminano vincere sulle tenebre. Jara Ahmad Yeah. jox sama carte ci am sa jaxate mu agal ñu am mbété bu baaxa baax bala ñoo dugg foofu ñu siyaar suñu kilifa sëriñ sidi makhtar yalla ko sun borom gëna yagal gis bi ñor na ko lol gis nañ taxawa yu ci taxawé yépp waye lepp ci tuba ci ya wala na fi doomam suñ seex baara am nañ mbégte bu baax taxawaay bi ci jaajëfal tamit mboolem sëti Sëñ Tuubaa yi fa àndal yëpp ndax bari na ngeen ci xam waaye nit ñi nekk ci biir kon am na ñoo xam duñ tudd ndax ñoo ko bëggee noonu xam nañ li ci jaajëfal suñ am sa Tuubaa tam suñ soxla moom itam ku am taxawaay ci bis la defal nañ ci ab taxawaayam lool gis nañ ko bu baax a baax am nañ ci mbégte yi lool di am mbokkum taalibe moo xam ne ñu fàttali ko kenn ku ci nekk xasida bu mën a jàng mu jox ko addee Sëñ Tuubaa bu ko mënta teewlu fii ku demee këram ñu koy sàkk ci moom moo muy koo xam ne dafa doonoon suñu wëllëre di Sëñ Mahmadan Touré bokkoon ci waa daayira fulkul maçon bu Tuubaa génn àddina lu tolloog ay weer yu néew ci ginnaaw bokkoon ci duruskati xasida yu mag yi doonoon ku bëgg sëñ Tuubaa suñ suñ xel du jub ci moom benn wax kon ñu ngi koy sàkkul ci taalibe yépp kenn ku ci nekk nga fàttaliku ko ci xasida goo mën amul mbokkum taalibe yi moo xam ne turam laa jàppatu suñ Ousseynou sekk bu parcelle ci ginnaaw ñëw na fa koo xam ne ndeysaan ku bëggoon xasida yi la dafa faatu bañ koy miraas ñeenti junni yam bàyyi ñu jël ko ne dafa bëggoon xasida yi nañ ko ko defal ci këru xasida gi moom moom itam ñu ngi ko ci fàttali bu baax ak mbooleem yaakaar Sëñ Tuubaa ñëpp daal xañ nañ ci bis yenn jànkati xasida yi nag dañ leen ameel ak cant boo xam ne ci Serigne Touba lañ koy séré Serigne Touba képp ñu lay ci séré dañ ko séré ndax gis nañ seen taxaway ñu xasida day amuñ ñu dul day yi Serigne Touba yi xasida yi am njaboot Serigne Touba képp lañ am ko ko japp ñu japp la ko xabaay ñu bayina lolu mom moom dañ koo jaayante suñ giiru du ñu gis ne bisu xasida day bari na lool lool lool lool te day bari dana dem ba bis set bis am ndax mbirum seigne touba ni tollu fu bis am lam mu sori sori foo wëlbati koo gis ku gàddu sak gis ku yorub doll ñi am pass dana ñu pass dem ñi am pass bu jégué dana ñu ko dox lepp seigne touba dong lañ ko jaral kon seenu bëgg seigne bi mom wér na du noonu ba tax fi ne su toogee di jàkkaarloo yéen sama xol day sedd ba dama bëgg a jóg ngir damaa xam ndax ñun Sëñ Tuubaa rek ñu ñor ku ñu xam ne Sëñ Tuubaa eh, ñor na la yaa ngi gënal suñu bopp moo tax yéen ñii di taalibee Sëñ Tuubaa di jànkati xasida yi lépp loo xam ne maa ngi ko doon sàkku muy lenn am naa yéene bàyyi leen ko bu dee ñaar ma bokk ko te li ma wax Sëñ Tuubaa xam na bu dëgg ci woon daray àddina jëral lu ma wax lu nekk ci woon bis bi defuma ci dara lépp jànkati xas di ko def ñoom Mohamed mii de xam nañ li ma wax bis bi dama leen wax ne leen du bis bu am bitte ay réunion yépp bu ñu waxee dama leen wax jëru ko bi ma ñëwee Ndakaaru léegi fukki fan ak juróom la ci tey ñoom ñii xam nañ benn yoon laa fi génn dem bisub xasida bu Louga génnaat fi dem bisub xasida bu barak baraak bisub tey jii lay door gennat li dem ci bis bi lepp kon jangal xasiye ko ci def diiru booba ba legi bis bu set ben kurel dana ñew ne li maa def ci bis bi ben kurel ñew ne li defal nako ci bis bi kon bis bi seen bis la ba ngeen xamé ne bisub seigne touba la tax ngeen ñew jël seenu ñak def ca jël seen doole def ca ci suba ba legi wirna ma ne suñu jotaay bi tamet seeni xol bëggut a dem kon sëñ Tuubaa la ñuy suñu cant ci yéen di gën a feddale suñu kóllëre ci yéen ñaareel ba muy so fàttalee rek lu jëm ci këru xasida ga fàttali léegi sax jëru ko ndax fekkeen fàttewu ko dañ ci am yéene rek ndax dañoo gëm ne dund ba faatu te defaloo sëriñ bi dara sun borom defoon la am mbaam moo ko tane waaw nga doon am mbaam ñu jël aw yedd la ko dóor nga xam ne aar boo faatoo atem mbaam gaar waaye doon nit te defaloo sëriñ tubaa dara moom waaw doon mbaam ko tane moo tax ginnaaw loolu am Sëriñ Tuubaa suñuy dund sëriñ bi la suñ faatoo sëriñ bi la rëkkalun faatu ku mu ci mën a doon ci jotaay bi ñëppay faatu waaye li am solo mooy nga faatu jàkkaarloog suñu borom mu ne la yow ana loo defoon ak Ahmadou Mbacke kese la ni sàpp ñun rëgalun sawara rëgalun bugalum bàmmeel dara ndax ndax eh, Sëriñ Tuubaa lañ teg suñ kanam doyloo ko lu nu suñ borom def baax na kon daa jaadu ñu ginnaaw moomun ci suñu bopp dara daa jaadu suñ lépp nag ñu bàyyee ko sëriñ bi ndax sëriñ bi dafa wax ne boo ñëwee ni ko jébbal naa la sama bopp àddina ak alaaxira nee na boo ko waxee dégg nañ ko waaye boo ko jëfee nag jàpp nañ motax suñ lepp dal dañu bëgg muy muy sëriñ bi rek bis bi li ni ni mu muritee ñu ya, jang fi alquran jang fi xassida lepp tiyaba ju ñu ci suñ borom mëna jox tiyaba jojé lepp lan ci wara am lu mëna tollu toll ñun nañ ko joxaat ci bi addee rek soxlawuñ ci dara sama yene ya, ci këru xassida gi li ma jàpp ta wax ko ay nit muy jee bu noppee am na yeneen it barab ñoo xam jàpp naa ko faa def ndax kër yi daa war a bari ne kër Sëriñ Tuubaa yi bare kër xasida maa ngi koy sàkku ci àddina bi fépp fu kër Sëriñ Tuubaa ko fa mën a def kër xasida nga def ko fa na bari ne kër Sëriñ Tuubaa yi bare am naa ay barab yoo xam ne fii may wax ak yow liggéey noppeegu te ma jaaxal waaye saa ba noppee kër yooyee am na ci yoo xam ne génn naa ko ba noppi këru xis laa koy defaat suñu dund li ci des lépp dañ koo fas yéenee liggéeyal Sëriñ Tuubaa ci xasida yi waaw parce que yéenee képp kuñ gis ngay dox jëm ci xasida rek buñ la ko waxee buñ la ko waxut am na ñu joxeel ci yow kuñ gis la nak yow da nga bañ señ bi manam mom eh, bañ na la man nit ki bo xasse bëgg señ bi wala nga doon jankatu xasida man sikk so mën ané amee so sé awuma ci soxla señ bi rek oh, lay xool ci yow hmm ndax ma yees ya ñep ma gëna sik ñep ñëpp ndeysaan bis bi nag da def tay ben fan rajab démb am na ñu waxtaanal mel leen bis bi soxna sukaawaana ko mom ren ah do laa leen waxoon da soxna sukaawaana moom bis bi ren laa leen waxoon waaye waaye suñ saa réew ci wet bi nak

dama ñaan sun borom suma démé ba faatu it bis day continuer tan lay témer at kanam bis bi yéen jangat day seen bis la lu lu sëriñ bi bëgg mu am la rek day amee nam ko solo waktu koy ñaan waxtu nekk it lenn lu dut sëriñ bi buñ ci dugg képp ko xamanteni mom dama ko war di Eh, eh, eh, bëriwu ma nag lu may diir sëñ bi dara ndax man du ma bëgg dara. siñ sëñ bi naa bëgg sëñ bi rek aw ma soxla man waaw man aw soxla sëñ bi rek laa bëgg jomb naa maa bëgg dara. jërëjëf bëgg te lu ma bëgg sëñ Tuubaa fekk ma ci aw ma ci lu muy sax sax moo tax du ma bëgg dara jomb naa ko ndax kon day mel ni bëgg naa dara lu dul moom waaw naa yem ci moom rek su dara nekkee sama xel rek bu dee lu mu war a defee dana ko def. waaye su ma ci xaj-xajalee dara di ko bëgg su ma ko bëggee dana ko def awma lu ma ci sikk sàkk te bu boobaa xajal xajal naa ci sama xol lu dul sëriñ bi yomb naa ko waaye nag lenn moom bëgg naa ko te danaa ko diisaat sëriñ bi képp koo xamante ni jug nga jëm si ci bés bii bëgg cee dugal lenn lu dëppawut te ngirum sëñ bi na la sëñ sëñ bi teg yitte joo xamante nii ba doo talee ñëw ci bis bi nga dem ci yeneen yitte waaye ñu ñu nekk ndax dañ leen woo ci sëñ Tuubaa ngeen ñëw ngir jëmmi sëñ Tuubaa jombale nañ suñ digg ak sëriñ bi ngeen ñëw di fi gis lu dëppawut ak sëriñ bi loolu moom su naree am ci bis bi bu boobaa mooy fomb gi moom moo tax du ci am loolu nag dama koy diis sëriñ bi moom ñëwuma koo diis dara nag waaye lii moom danaa fi ko diis waaw danaa fi ko diis kon kàddu yi dañ koy tënk foofu waa isbu tarixee ñoom suñu Ablaye Diop ak waa Darou Khoudoss ñu ngi fi dañ leen di déglu ñoom dañuy jàng kàddu yi ma waroon a wax bàyyi am surtout laa fay bàyyee wax benn dénkaan rek laa dolli kon ñu tëjee ko muy xaarewal yar kan li abwaabi salaatini amiin tamus jawaisa tux nii ku la ma ayni fa qultu hasbiya rabbi waktafaytu bihi walastu raadiya xayril ilmi wa diini walastu arju wala axsa siwa maliki li annahu jalla yuxni nii wa jini nit ñaa ngi naa ma demal ci bunti buur yi kon da am loo jàpp waxtu wu nekk mën a leen man de yàlla doy na ma te doyloo naa ko bëgguma lu dul xam-xam ak diine yaakaaruma ku dul sama borom ragaluma ku dul sama borom su ma soxlaa ma koy faj teyit moo may musal wassalaamu aleykum wa أخرجنا من السلام بكر نور من حباك بالكلام بشرك الجميع يا خير إمام بما نويت فيك زعمت تمام أنت النبي والرسول وما بك القياد صالحين بزمام لك كل لك بي يا جاد لنا باخ تعالى المنام بك فأنت زيدي خير الأنام نعيت ذكره عليك كلها وكل سور والكتاب لدهام نويت شكره عليك بخلام وخيرها يا سجامي الكلام هديتي قس كرما بلا انسرام يا غائدا لي من إلهك المرام تبت لربي ساحرا بس النسام لك وقبله حبوت بعذاب هم فيها خالدون هديتي إلى جماد ثانية من المعرم القطوف دانية ملكني الماء الهدايا كافية كل أسن من خيراي كافية فنادوا بقدم الله زانية لا من القدم ليست فانية ينظر سيدي وروبي الداية إلى جناني إلى عزايا هديتي إلى النبي سافر بصارة الله خورا دافئ إن خلامي بالنبي هاديه إلى جنان من حلاه باديه خدمة خير العالمين جالية قاليني فضر من قالية أحمدنا رتبة جرلانية تخلي معبه وتخفي خاليه لأحمد المختار قط القافية حافية تدوم ليس الحافية درجة المختار ليست خافيه إذ الحياة للحباد سافية جدي ربي ولو للخاسر ألا نهدينا سدهر الناس ناجيت فيه لجماد ثانيه من المحرم المنير الداني قد خادم رسول الله